Cheikh Oumar Gueye ñu ngi lay nuyu. Mm-hmm. ñu ngi leen di fay. may fàttali suñu auditeur ni ñu ngi dalal euh, directeur des transports routiers monsieur Gaye euh, tey jii ministère des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement ci arrêté bi nga xam ne jël na ko euh, mardi gi ñu wees jël modification mesure restriction jëm ci secteur transport wax wax ñu ci tuuti. waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di seen auditeurs yi. comme ni nga ko waxee noonu la xam nga fukki fan ak benn bi ñu génn ci ci weeru mai bi ñu nekk njiitu réew mi dafa jàkkaarloo ak askan wi pour waxtaan ak ñoom donc euh, ci wàllum euh, mbas mi nu muy doxee ci biir réew mi. Mhm. ci biir euh, donc si jataay boobu mu jël si ay dogal yu bare dogal yooyu bokkoon na ci ubbiwaat classes yi mooy classe examen yi ak ndong yi delluwaat ci daara gi marché yi ñu ubbi ko cinq six jours sur sept lu may ñu ubbiwaat leen lu may si département yi. ubbiwaat eh, jàkka yi yooyu yëpp doon ay décisions yi nga xam ni faaw mu am ay jeexital ci wàllum transport mu dem ba ni nañu indi ay yomb yombal ci ñi nga xam ni tey nawet bi eh, teeru na ñu bëgg a delluwaat ci eh, donc tool yi béywaat ñi ngi woon ci xëy na taaxu kaw yi yooyu yëpp war a am ay jeexital ci wàllum transport ci buñ koy appliqué looloo waral donc ministre Oumar Youm muy ministre bu am bu yor wàllu dem dem beeg dikk bi xaatim benn arrêté arrêté bi ci wàllum Euh, transport urbain boo leen di fàttaliku ci gannaaw am na xëy nañ weer wala ñaari weer ci gannaaw jëloon nañu arrêté wax ni ci auto transport yi donc ñi ngi may boroom oto yi ñu yàpp lu toll genn wàllu oto genn wàllu siège yu nekk ci oto bi loolu la ñu doxaloon boobu ba fii loolu nag bi ñu ko doon def c'était que pour euh, ñaax nit ñi ñu toog seen kër ñi war a lig ñi mën a def télétravail te du yàq dara ci liggéeyu entreprise bi ñu def ko ñi nga xam ni euh, bu muntu ñàkk rek la ñuy déplacer mooy déplacer wu dem liggéeyi déplacer wu pour dem faju ji dem marché wuti loo lekk loolu nag moo indi woon ñu def restriction yooyu pour que vraiment donc euh, nii mbas mi doon lawee ci réew mi surtout ak cas communautaire yi ñu indi ci saafara te bu ñuy jël ndogal be tamit ndogal bi ñu ngi ko jël ci euh, donc euh, conseil yu donc autorité sanitaire yi bu ñu nag ba njiitu réew bii dogal ñu xam ni loolu yëpp liñ fi wax yëpp dina dina tax demande de transport bi gën a yokku mhm. ñu ne nag jot na bu ñuy defee donc port du masque obligatoire ci biir transport yi da nga xam ne jëloon nañ ko def ni ministre wàllu port masque obligatoire ci biir transport yi loolu déjà aspect bu rëy la ci wàllum xeex bi bu ko réussir rek mën nañu fexe ba nit ñi ci biir transport urbain yi ñu mën a euh, donc donc euh, leen transporter avec la pleine capacité du véhicule mhm. bi maanaam euh, siège yu nekk ci oto bi yëpp ñu permettre transporteurs yi donc ñu mën a ñu a yeb ci ay clients donc loolu mooy looy solo arrêté bi loolu nag jëm ci wàllu car rapide yi Ndiaga Ndiaye jëm ci wàllu en urbain muy Sénégal muy si muy muy Kaolack muy Thiès muy fépp donc euh, mu jëm ci njëga njaaye mu jëm ci tata parce que tata yi ci Sénégal yëpp fu nii mu jëm ci euh, euh, Dakar dem dikk jëm ci taxi urbain yi taxi urbain yi tamit comme ñaari place lañ leen mayoon mhm. bi paa yokk ko def ñetti place ak chauffeur bi muy ñeent oto particulier yi nga xam ni particulier yi nga xam ne seen oto ñeenti place moo ci nekk ñaar lañ leen mayoon léegi mayaat nañ leen benn muy ñett su benn transport public tout court de marchandise boobu disposition bu ñu jëloon ba ne di wàññi nañu nombre place bi si euh, xaaj si xaaj ba mm-hmm. loolu mooy mooy continuer di law bi maanaam lépp luy auto touristique lépp luy auto euh, donc donc privé de personne mooy location yeeg yooyu lépp li nga xam ni mooy auto transport marchandise mooy euh, camionnette yeeg fourgonnette yeeg yooyu nga xam ni moins de deux mille de de de de de deux tonnes la ñooñu mayoon nañ leen ci cabine yi cabine yi di leen waxoon benn nit lañ ci yàpp plus bi mm-hmm. dogal boobu mooy continuer wéy ci ci wàllu loolu daal mooy solo sa bi ci gàttal. tey jii euh, ku ci deful li ni mel tu risques quoi. alors ku ci deful li ci li ni mel. Euh, li yoon euh, donc wax ci wàllum daan dina tegu si kaw. te yaakaar naa ni daan yi boo xoolee donc ordonnance bu génn bees ni ñu publier ko ci journal officiel boo leen xoolee journal officiel lu lundi bi ou bien vendredi nga gis ni ordre njiitu réew mi xaatim na benn ordonnance mu jëm ci wàllum ñi nga xam ni ñoom ñooy jalgati santaane yi ñu teg ci wàllum état d'urgence marché ci wa muy dogal dogal yëpp nag yi nga xam ne ministre jël nañ ko yëpp te dogal yooyu yaakaar naa ne ni ñu corsé ni ñu corsé daan yi dina tax ba ku koy bëgg a defati di nga ko xalaat am na nga xam ne sax dem na ci wàllum ci ci wàllu ci nga fay un million ba cinq millions ci wàllum tëdd kaso di nga tëdd un million euh, ba un an un ba ba ba cinq ans te loolu yëpp doon don doon li nga xam ne lu ñu mënut a négocier la en tout cas lu gën a néew daal mooy un an lu gën a néew ci li ngay fay xaalis mooy un daan yu am solo donc ñuy invité ñëpp ñu mën a donc mesures yooyu dafa mës doon jafe-jafe fii ci Sénégal tey gis nañ ne donte euh, wàññi nañu assouplissement yi ñoo ngi ñoo ngi wàññi ndànk nag mais élèves yi fi ak semaine dinañ gën a yokk mooy arrêt yi dina gën a bëri ay nit ndax xalaat ngeen ci loolu. waaw moom laa lay wax ni xam nga moom la ñuy loolu la ñuy gàttandu boo gisee ñu jël mesures yi yokkaat place yi euh, loolu la ñuy gàttandu nee naa la si njël si njëlbeen ba. waaw mais loolu terewul euh, li nga xam ne mooy ñàkk auto am. non maa ngi ñëw. Mhm. xam nga tey njiitu réew mi waxul école bi ñëppay daluwaat mhm. daluwaat mhm. classe d'examen la wax te ku xam transport muy doxee xam transport scolaire aussi ni muy demee mm. la plupart écoles yi lu ëpp ci écoles yi bokk am nañu système transport élève loolu déjà dina satisfaire donc demande de transport boobu boo li nga xam ne yokk nañu place yi ñu xam ni bii nga xam ne wàññi woon nañu place euh, bi public parce que du ñu ay problème d' problème de rentabilité oto yooyu yëpp gaare woon dañuy duggaat ci réseau bi boo léeg après yeneen mesures yi nga xam ni état bi teg na ko mooy euh, ku mën a def télétravail nga def ko ku mën a wàññi say déplacement nga wàññi ko yooyu dafay dafay des toujours mm. def naa loolu yëpp bu ñu ko boolee dina mën a satisfaire euh, carrément demande de transport bi nga xam ne moom la ñuy séntu tey jii gros porteur amoon na ñi nga xam ne dañoo bloqué woon ci yenn diwaan yi ba arrêté euh, bi nga xam ne moom moo dakkaloon trafic interurbain bi accès tey ji ñooñu lan mooy seen euh, seen seen ëllëg. waaw yaakaar naa loolu njuumte la amul benn groupe gros porteur bi nga xam ne rek tag na ci réew mi. gros porteur yi arrêté kii bi donc mesure restriction yi concerné wu leen. Mhm. ci euh, ci mesure yooyu wax nañu dem beeg dikk bi ci wàllum transport marchandise ci réew mi ak ci bitim réew day continuer donc transport international bi ak transport euh, national de marchandise bi mi ngi continuer transporteur yaa ngi continuer dem Mali ñi ngi continuer dem dem Gambie ñi Fall Diop li nga bëgg a wax mhm. mooy chauffeur interurbain yi nga xam ni mhm. dogal bi ba muy wàcc mhm. daf leen fekk donc ñu nekk ci région yi ñooñu noonu euh, ñu ëpp ci ñoom ñu nekkoon Ziguinchor la ñu nekkoon te ba ñu jotee xibaar bi jot nañu ndigal euh, donc euh, pour effectivement wutal leen pexe te pexe boobu wutal nañ leen ko gouverneur région ba donc recensé na leen testé leen yóbbu leen ci ay oto ba ku nekk dellu na sa kër ñeneen ñi ñoo nekk côté Diaoubé ñooñu tamit gouverneur de euh, de Vélingara. Mhm. ñu ngi liggéey ak président gare routière ba muy Aliou Sanoko pour que effectivement chauffeur yooyu tamit protocole bi nga xam ne moom lañ defoon fële sa te léegi am na ay taxi urbain yi nga xam ni mhm. euh, bu mesure Dakar lu ñuy ay DK lañu taxi jaune noir mbir mi bu muy am fekkoon ñu génne location nekk Touba nekk feneen ñooñu tamit tey jóg nañu dogal pour recenser leen pour que ministre l'intérieur jox leen ay autorisation ñu dellu benn boor. ci transport interurbain boobu le sax euh, monsieur Gaye ñoom jàpp nañ ne discrimination dafa am euh, ci mbir yi ndax donte ubbi nañu yenn secteurs yi ndànk-ndànk ba tey ñoom seen secteur ñu ngi ko tëj. waaw foofu nag di ma may tuuti su euh, ma gërëm acteur Séné acteur transporteur du Sénégal yëpp. Mm. waaye di baral beral ngërëm nag acteur interurbain bi comme ni nga ko waxee. ay la yowoon li ñuy dund métti na lool bi ñu leen waxee nañu bu mesure bi ndogal wàccee rek ñu leen nañu arrêté transport interurbain ba si la ñu oto tëj boobu léegi nag wax dëgg yàlla yàgg na ku ñu ci ku amoon oto di ci dund wala yor sa gaaru ceeb di ci dund a na ba ci kanam yàlla xam nañ ko waaye tamit ñu ngi bokk ak ñoom métit boobu di bett bokk ak ñoom vraiment donc siti situation situation yooyu dañu war comprendre que ni rek euh, lii bu amee rek xëy na feebar bi moo moo ko indi te mesure bu nu mënti jël rek waa kër docteur ñoo koy dicté lii de boo leen ko defee mbas mi dina wàññeeku wala euh, dina dina taxaw wala dinañ ko dinañ ko mën a xeex bu efficace financement mm. loolu mooy indi mesure yooyu di am ñu bañ a fàttali ni ngi nekk ci contexte état d'urgence état d'urgence nag boo koy dégg par excellence mooy naturellement dafay am restriction de déplacement te loolu ministre l'intérieur rek la yoon jox dogal pour mën a jël loolu moo tax ministre de l'intérieur jëloon dogal pour dakkal dem bi ak dikk bi entre euh, dëkk dëkk léegi nag dégg nañu euh, euh, seen jooy mm-hmm. ñu ngi bokk ak ñoom position naqar yi nga xam ne am nañ ko wala jafe-jafe yi nga xam ne am ko mm-hmm. waaye lu mu la santé autorités sanitaires yi ñoom ñu évaluer donc euh, risques yi évaluer impact yi doo ko mën a jël décision ci ci loolu mhm. waaye daal nañu xam ni kenn néewu leen nañu arrêté liggéey ci suñuy si ñu neex rek ñu def loolu waaye xeex bi moo ñu toll waaye euh, donc euh, ci ndigal lañ ko defee autorités sanitaires yi ñoo conseillé loolu moo tax loolu am nii donc ñu leen di massawu yaakaar ni li ñuy joytu déglu nañ ko njiitu réew mi déglu na ko donc donc donc nañu bàyyi autorités sanitaires yi jox si seen xalaat ci loolu pour que ñu mën a jël yeneen mesures xeet gi nga xam ne bëggoon nañ leen koo jàppale tey ji nan ngeen di def pour recenser euh, ak euh, nan ngeen di organiser pour jox leen ko. waaw koppar yi euh, ñuy fàttali ni loolu moo tax sax jafe boobu ñuy dund moom lañ doon gàttandu xam ni secteur transport ci secteur yi impacté yi la bokk te pour nga liggéey lool loolu seen liggéey il faut que ñu am lu ñu dundee tuuti neew ñu ni du leen di rembourser lu ñu perte déedéet waaye du ñu wax du leen di soutenir rek pour ñu am mën a am lu ñu jàppandi pour mën a en jafe-jafe yi nga xam ne moo daal su ci kaw ñun ñëpp muy musiba muy balaa ci loolu la nguur gi euh, fas yéene génne euh, donc cinq milliards deux cent juróomi milliards ak euh, juróom fukki junne millions xaw ma noonu la ñu koy waxee wala mm-hmm. donc de cinq milliards deux cent cinquante millions loolu ñu séddale ko nag ci secteur transport mu jëm ci transport urbain bi transport interurbain bi ak gare routière yi yaakaar na transport interurbain bi donc ñu ngi ci am un milliard donc transport urbain bi lu jëm ci wàllum afti région yëpp ay oto tata mu ngi fay ñooñu un milliard cinq cent la euh, si trois mois yi bu dee Dakar dem dikk un milliard la donc ci ci trois mois yi bu dee gare routière la bu dee donc Ndiaga Ndiaye yi car trois cent millions bu dee taxi yi trois cent millions loolu yëpp boo ko boo mu jox la cinq milliards deux cent cinquante millions. Mhm. Euh, recensement bi du jafe parce que nag bul fàtte ni ñun ñoo administration transport ñun ñoo yor carte mooy képp borom yaa ngi daw xam nañ la am nañ la. Hmm. donc loolu du doon jafe-jafe. waaye organisation la laaj. loolu moo waral sax ci wàllum interurbain bi ak wàllum gaaru ceer yi. Hmm. Euh, ministre bi jox ndogal. donc gouverneur de région yi. donc circulaire bi dem na ci gouverneur yi ñoom ñëpp jot nañ ko. Hmm. Euh, ku si nekk def benn comité donc comité euh, local benn comité local bi nga xam ni gouverneur ci boppam moo koy présider. chef division régionale ba fa nekk des transports yore secrétariat bi. président gare routière ba nekk membre président transporteur région ba nekk membre euh, donc société civile am membre ministère des finances nga xam ni le trésor wala donc le coordonnateur des finances de la région représenté que parce yore yore xaalis moo koy joxe. Mhm. ñooñu comité boobu nag moom mooy donc saytu moom mooy joxe xaalis oto yi nga xam ni ñu ngi leen immatriculé ci région boobu. Mhm. donc nga xam ni lu doon lay doon lu transparent lay doon bu nangam loolu du fa donc moo tax ñu joué ci transparence boobu teg comité yooyu pour liggéey bi gën a donc loolu du jafe te yaakaar naa ne ci semaine bii ñu jëm nii rek mhm. euh, wala balaa fin semaine bi mhm. gouverneur yi tey da da leen mettre en place comité yooyu bu ko defee bu ñu correcté rek ñu commencé jublu ci liggéey boobu parce que xaalis bi nag fu ñu toll nii euh, transféré nañ ko ci compte dépôt ministère des infrastructures des transports terrestres des encavements mhm. donc jóge na finance mu ngi ci compte de dépôt léegi lu bi ji euh, dañoo daal di yokk validité bi app bi euh, ba njeexitel corona bi gis nañu spécialiste yi prévision yi ñu ciy def tey ji ndax du danger waaw du danger xam nga euh, loolu dinaa si ñëwaat sax ci ci ci yokk boobu mhm. waaye du danger. waaye tey boo doon bo boo xoolee statistiques yi ñu jot ci ci wàllum accident. Euh, di nga gis ni euh, euh, lu ñu daan faral di wax rek li ëpp ci accident yu indi faatu bakkan ci réew mi mi ngi amee donc lu naan ci ñaay bi mooy race campagne. Mhm. interurbain lu ci ëpp quatre-vingt pour cent accident mortel yi foofu la daan amee moo tax gis nga bu corona bi amee léegi mois de mars ba léegi lu néew la lu néew lool lool lool lool la ba tax na donc am nañu réduction wu lu tolloog lu tolloog soixante-dix à quatre-vingt pour cent des des accidents mortels donc bu Covid bi commencé léegi routière parce que oto yi dematuñu en interurbain waaye euh, di joxe xibaar rek ni euh, daañu reprendre activité contrôle technique yi ak activité donc on va dire transport yi ci lu jëm ci wàllu mutation yeeg immatriculation yeeg yooyu daañu ko reprendre progressivement te yaakaar naa fii ak fin de semaine leen xibaar daan ñu leen kañ la ñuy naka lay demee donc reprendre en toute sécurité def nu ko njiitu réew mi santaane dund ak virus bi su ko defee ku nekk respecté mesures yi ñuy wax mesure de protection yi ba ba ñuy gagné euh, corona bi ba ba ñuy mën a reprendre euh, à cent pour cent la. amiin Cheikh Oumar Gaye merci beaucoup. merci merci beaucoup jërëjëf may fàttali ne yow yaay directeur des transports routiers doonoon suñu gan tey.